moom mi mooy Pape Malick Ndour ñu tabb ko jëwriñ gi ñu dénk ndaw ñi entrepreneuriat ak xëy mi ca bëccëgu fukki fan ak juróom-ñaar ca weeruk sàttumbar atum 2002. Pape Malick Ndour doon coordonnateur national bu programme des domaines agricoles communautaires de Prodac mu nga juddu ca atum 1984 ca Mbadakhoune ca région bu Kaolack Pape Malick Ndour ba fii mën nañ ne moom mooy président conseil départemental ci taarixu Sénégal bi gën a ndaw moom nag waajuram président bu ex communauté rurale bu Mbadakhoune la woon Pape Malick Ndour nekk na ab macroéconomiste spécialiste des questions de finances publiques nekk na it ku am xarañteeg lool ba nga xamante ni it xam-xamam waral na ñu yóbbu woon ko ca ministère de l'économie et des finances muy président conseil départemental waaye tamit am lii di master 2 ci recherche en économie avec une spécialisation en économie monétaire financière et bancaire à l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom mi tamit mën nañ ne am na maîtrise ci analyse ak politique économique ci UCAD ci wàllum politique am moom Pape Malick Ndour doonoon na coordonnateur national adjoint waaye tamit nekkoon porte parole bu mouvement élèves étudians républicains yi membre fondateur bu APR la jàppal leen ne itam moom mi doon na responsable bu yëngu ci coordination jeune républicains yi di COJER waaye tamit doon responsable politique ca département bu Guinguinéo APR di alliance pour la république mooy parti bu njëkk bu Pape Malick Ndour mi milité ca décembre atum 2008 laataa loolu moom Pape nekkoon na ab syndicaliste doon xeex ak ak yelleefu étudiants yi bëri na lool lañ ko tabb mu nekk ab délégué bokk ci comité exécutif bu amical étudiant yu faculté des sciences économiques et gestion ñu gën ko xamee ci FASEG moom nekkoon na président bu front du refus nekk ab regroupement boo xam ne dafay dajale boolem force vive yu FASEG waral na itam xeex yépp moom mii moo nekkoon ca bopp ga doon ko mëne gaal googee suuxut benn yoon ndax wane na boppam ba nañu koy tabee mu doon jëwrin gi ñu dénk ndaw ñi fii ci miim réew moom Pape Malick wane itam ci biir kombaawam ne daraay tax muy gàkkal yorinuk réew mi kenn ka kay xaxar du nangu li mu taxaw tëmm ci kanamu combat yi xeex ngir Macky Sall moom ñu gën ko mën a jàmmal bokk na ci combat yu bëri yamuy xeex janook ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñuy sànnante kàddu Pape Malick nduur ci ay mbébétam bokk na ci maison de la jeunesse bi ñuy teg première pierre bi ba léegi tabaxuñ ko des nañu koy àggale waaye tamit leneen la koy xaaraat bokk na ci assemblée générale yu conseil de la jeunesse yi ñu dooraat ko gannaaw ñaari atuk yàlla ya nga xamante nit ñoom seen mandat jeex na loolee war xaarandi it bariwaat na xëyut ndaw ñi moom liggéey ak ndaw ñi fan la cee toll. mu ngoog merci Habib Faye ci portrait boobu la nga xam ne def nga.